am itam ay bés yu ñuy dëgmal. Mhm. Euh, diggante Balla boo mhm. Boy Niang nan nga gisee ñaari mbër yi. Euh, ni ma gisee ñaari mbër yi. xëy na lamb boo ko xamee xam nga boo déggoon mbër bi ñu doon woowee Ngariñ Séeréer. Ngariñ Séeréer la ok am naa benn final fale Tukaar ak Saaku Xam-Xam. Mm. final bu neexoon lool. Mm. bëri woon coow tamit. Mm. Lima analyser ci combat Boy mm. ak Balla Gaye mhm. euh Gaye bu mu jappé lamb ji business ok ndax Boy de ko gëna fété ci ndaw mhm. te té limu bëgg ci lamb mm. rawna li bala bëgg ci lamb dëgg la mom Boy mom boyña Boy mm. bëgg ci làmb tey raw rawna li bala bëgg ci bara nak amna fu mu doon jaar ak tey mën na la wax ne mara diw raafkat bi mu yor. Hmm. bala moo ko ko jëndal. ok. waaye ba ci combat bii déggantewuñu wuñu téléphone. Ah te kooku ku baaxoon ci bala Gaye la. Hmm. ku ko féete woon benn côté la. te xam hmm. naa ko bu baax dañuy déggante. mbir yu mel noonu nag boo ko amee sagane ko mhm. te xam kilifa gu toll noonu mhm. ah, ndax booy ñaa ëllëg bu fa demee nu muy deme waaw fekk mu jàppal la dara waaw kon maara kenn du ko wor kenn du ko wor mhm. waaw comme mbokk internet yi rek bu ngeen gisee ñuy laaj sëriñ bi ci wàllu làmb ji xam naa xam na ci dara ndax jaar na ci mën nañu wax ne jaar na ci am na lum ci xam te day ñaanal ay mbir itam moo tax ñuy dugg ak moom foofu mais ci wàllu mystique ñoom ñaar kan moo gën a taxaw pour le moment gis nga ci mystique. Euh, su ma ko waxee léegi réseaux sociaux yi dañ may xaw a weddi. Mhm. waaye booy ñaamoo gën a taxaw ci mystique. pour le moment ko waral. Mhm. Euh, ndeysaan Balla Gaye daa yaakaare lépp lu muy dox ci mystique waru koo jële senegal mhm. man lu bari luy dox ci dëkk bi bariwul lu ma ciy réer. xam nga di dem ay Inde ay ay Burkina Faso. ak Guinée Conakry ay Côte d'Ivoire. Euh, jàmbaara am na garab yoo xamante ne boo ko duggalee Sénégal. Mhm. ci mystiku Sénégal ci boppam laa la wax. Mhm. du fi yegg si. te neewul doole. Mhm. moo tax néew ma Balla Gaye du dox feneen mystique. waaye na dox feneen mystique boole kook Sénégal. boole kook Sénégal waaye mu ba pare di. di dem foofu kon booy ñaa dina ko daane mystique senegal ndax boo ñaa moo gën a taxaw pour le moment daal. ci mystique ci mystique. Euh, xanaa xamoo ne leen dafa am. Hmm. gis nga euh, lam bu tàngoon dëgg. Hmm. xare bu tàngoon dëgg géwél ya ñooy feete kanam. ok Balla li ma bëgg mu bàyyee ko xel bu baax. Hmm. na xam ne booy Niang géwél la. waaw te gis nga tëggkat day jàppe mbër ci galañ. ci fi muy tege. galañ buñ ko tegee ci lam ku ne moo koy dëgg. dëgg la. mbot dañ ko fay jàppe mm. kon na ci demee xel bu baax dox ci li ko war mm. new ma nag amul mystique new ma amul amu amul sëriñ mm. waaye na bay li mu yaakaar ne soriwaay moo ko mën a am li mu li muy am moom Balla Gaye incha allah jërëjëf kon xam naa dañuy yem foofu ñu tagtoo waale foofu dugg ci beneen bi incha allahu rabbi eh, ñu ngi ñëwaat léegi ak yéen ci beneen eh, troisième émission bi ñu dugg ci séeréer yi saltige